الوجود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم mbokki téléspectateur ak internet yi ma fàttali Bichri mbégte ak kontante la ñu am saa su nekk bu waxtu bi jotee euh, ñuy feggoo ak yéen ngir jukkil leen li nga xamante si dañu koy daal di euh, tey di yemoo ak euh, fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2024 dañu koy daal di rek doore ci bile ëttu yéenekaay di Dakar Presse moom dafa daal di xëyandi ak rek giraawaali yi nga xamante ne si dañu koy faral di nemmeeku rek ci tali bi te yooyee jamono ji toll euh, bi la ëttu yéenekaay dafa daal di rek jàpp ne tata yi nga xamante ni ñoo fekk baax ci réew mi euh, ñoom daal ñoom rek ñoo daal di jël raw gàddu gi ak rek ay accident yoo xamante ni dañu koy faral rek di def jëmale ko ci kaw askan wi euh, ba tax na ëttu yéenekaay bi rek di wax ni fan ñu génn nemmeeku nañ ay accident yu tar yoo xamante ni yooyu la ñoom ñoo koy daal di faral di waral rek ba niki démb rek fële nga xamante ni moom moo di rekk ci foire bu ndakaaru ci VDN bi moom ëttu yéenekaay bi di àddu ni accident bu metti rek moom moo fa daal di am euh, ba du toll ci ñetti doomu aadama daal di fay jot ñàkk seen bakkan moom ëtt yéenekaay bi dikkaat euh, ci mbir ma euh, la ko sookee ak lan moo ko daal di waral ni ligne 44 bi rek moom moo fa daal di pent contrôle euh, ba tax na rek mu ramassé fa lu toll rek ci ñaari moto ak taxi moom ëttu yéenekaay bi ne loolee sax moom moo daal di jur rek euh, bile rek euh, musiba daal di am niki démb rek foofee ca foire bu ndakaaru bile ëttu yéenekaay di Dakar Presse moo daal di rek xëy fësal lu ñu mel ci loolu rek la ñu daal di des ci beneen ëttu yéenekaay di waas moom it noonee rek la fi indee ak rek chiffres yu horrible yi mu daal di jàpp rek ne jamono ji rek oto yi dañu koy daal di faral di def ci askan wi moom moom ëttu yéene cabinet sécurité ci boppam moo daal amatul bu weesoo loolu la ko daal di waral rek di ay faat bakkan yu tar yoo xamante ni eh, dañu koy faral di nemmeeku di ko gis rek ci li nga xamante ni moom moo di ci tali bi moom ëttu yéene kay bi ca daal di àddune bokk na la koy faral di sooke eh, di rek indiscipliné mooy ñàkku yar bi nga xamante ni sa force dañu koy daal di amee waaye rax ci dollit eh, léeg-léeg ñu nekk ci kaw tali bi di njëkkante te loolee lépp rek teguñu ko fenn lu dul ci seen naf su bakkan moom ëttu yéene kay bi di Dakar Dias moom moo daal di rek xëy àddoo nu ñu mel ci xëtam bu njëkk ba tax na ëttu yéenekaay bii di àddu ko ni bilan bu diis la boo xamante ni ni ki démb rek daal di nañu koy yendoo rek ci corniche bu Ndakaaru di ab accident boo xamante ni si mi ngi daal di xew rek ci diggante rek tata ligne bu 44 ak rek ñaari moto ak taxi moom ëttu yéenekaay bi di àddu ne loolee daal di nay juru jéeya ba lu toll rek ci ñetti doomu aadama eh, jot ca daal di ñàkk rek seen bakkan beneen ëttu yéenekaay di Tribune Quotidien eh, moom dafa daal di xëy di sax di àddu ndax euh, du rek guvernement bu yees bu fi daal di nekk rekk ñoom dañoo daal di tëlee ngir jël ay mesures jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di si sëfër euh, si ci ñàkku bi yar ak yarediku gi nga xamante ni dañu koy faral di wane rek ci kaw tali bi Jean Baptiste Tine ak ki nga xamante ni si rek moom moo di El Malick Ndiaye moom ëttu yéenekaay bi ne ni ki démb rek euh, gars yi dal di nañ leen di interpellé ci lu ñu mel ngir ñu daal di àddu ci ñoom gën a gaawee jiyee jiyee ji ñuy faral rek di gis ci tali bi na ëpp yéenekaay bi dikkaat ci discipline ak responsabilité waaye conducteur yi nga xamante ni dafa mel ni sax xamuñu ne ay bakkani doomu aadama euh, la ñuy faral di yàpp rek ba tax na saa su nekk ñu di ko caaxaane bi la ëttu yéenekaay euh, di Tribune Quotidien moom moo ko daal di fësal ba tey ci moom Tribune la ñuy daal di des ci xatam bu njëkk mu àddu tamit euh, jëm rek ci souffrance gi nga xamante ni askanu Sénégal dañu koy daal di rek faral di dund bu weesoo rek tali bi nga xamante ni saa su nekk dafay faat ay bakkan moom ëttu yéen yëglekaay bi ne lu jëm ci ak dund gu seer ak nekkinu askan wi ba ci courant bi loolee tamit bokk na ci souffrance yi nga xamante ne waxtu bi tembe ah, daal dinay rek jaaxal sénégalais yi moom ëttu yéenekaay bi di àddu ko ni loolee sax moom moo daal di wundu ah, boulangerie yi ñi nga xamante ni dañuy yëngu rek ci wàllu mburu ñoom rek ñu ngay artu ak dànkafu ah, ci état bu Sénégal ne ci fan yi ju jëm soo wëttuwul njëgu mburu bi moom dana daal di yokk la ko daal di waral di courant ba ñuy daal di jëfandikoo rek loolee dafa daal di rek yokk rek ba jaaxal leen ba tax na rek ñu jàpp ni suñu xoolut ay pexe ci seen liggéey rek soo wëttuwul dina daal di sooxe moom ëttu yéenekaay bi euh, la ñu daal di gis rek ci mbir mu ni mel moom moo di rek ci kontooru wayafal yi nga xamante ni dañu koy jëfandikoo euh, loolee nee nañ du ak wayafal waaye ak diisal gann la ci ñoom ndax rek dafa daal di rek gën a jaxase waaye rek gën a wàññi koppar yi nga xamante ni doon nañ ko faral di am ci seen liggéey ba tax na ëttu yéenekaay bi di addu ko ne euh, la leen ci gën a jaaxal moom moo di rekk lañu ñu daan jëfandikoo rek ci wàllum farine ngir rekk lakk seeni mburu waaye mélange yi daan def ba ci rek production yi doon am amal loolee rek amul lenn loo xamante ni eh, daf ci daal di yokku te saa suñu xëyee gis nañ ni rek njëg gi ñuy jënd ci wàllum courant moom eh, loolee daal nay dis gann ci ñoom Walf Quotidien xëyaat ci leneen lu diis jamono ji rek eh, ci état bu senegal di rek lu jëm ci prix daare yi nga xamante ni ba tey askan wi yëpp a ngi toog di ko xaar ngir mu daal di cay indi ak woyofal moom ëttu yéenekaay bi di wal Walf Quotidien ne ma rek état bu Sénégal jël na ab dogal ni rek juróom eh, ci weeru mai ba tax na ëttu yéenekaay bi di àddu ko ni ba sax mbir mi du mujj nekk eh, test mesure boo xamante ni dañu koy daal di def rekk ci bile rek président di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye eh, ndax mbir ma dana jàll am déet en tout cas di ay xaar yoo xamante ni lu ëpp ci askanu Sénégal waxtu bi tembe rek ñoo ngi koy daal di xaar ci président bi moom ëttu yéenekaay bi di wal fu Quotidien moom moo ko daal di fësal Le Témoin di ko daal di ba tax na mu daal fësal lu ni mel moom itamit ci xëtam bu njëkk la mu ci daal di gis ba tax mu àdd ko euh, ndax rek kii di président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéene ak mébét yi mu daal di am rek euh, ngir bëgg wàññi njëgu dund gi loolee sax ndax dina jàll ci moom ak jafe-jafe yi nga xamante ne si moom la daal di fekk ci réewum yàlla du samay kàddu laaj la boo xamante ni eh, bi la ëtt yéenekaay di la témoin moom moo daal di xëy rek samp ko ni ki tey ci xëtam mu njëkk ah, ba tax na mu àddu ne ay responsable la yu diis yoo xamante ne si kii di rek Mamour Ndao eh, di président de l' association rek eh, ki nga xamante ni moom moo daal di àddu ci mbir mu ni ni en tout cas bay boo rek état bi xoolaat bu baax a baax mesures yi nga xamante ni da koy daal di jël rek jëmale ci mbir gu ni mel lu ko moy rek lépp dina daal di rek këppaat ci li nga xamante ni moom moo di ci kawam moom ëtt yéene kay bi moom moo ko daal di fësal ki fas yéene wut dara këpp ci kawam euh, di ki nga xamante ni jamono ji moom lay rek la ñu daal di jàppee ni rek moom moo jiite l' bi di Amadou Ba moom ëttu yéene bi ni rek daal di nay annoncé ay couleur am euh, ni ki rek démb ba ñu ko daal di gisee rek mu daal di wàcc foofee rek ci aéroport international bu Blaise Diagne di ab rek AIBD waaye teeru bu rëy bi nga xamante ne ay sympathisants ak i militam daal na ko fay def moom ëttu yéene kay bi ne ku doon laajte faali ngoye ngi ñu doon wër Amadou ak di ko laaj eh, ginnaaw défaite bi nga xamante ni jëlee na ko rek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars moom ëttu yéenekaay bi ne Amadou rek daal dinay dugg siwaat eh, ci réew mi ginnaaw tekk tekkaaral gi mu defoon ak absence bu yàgg bi booba ba tey moom ëttu yéenekaay bi di àddu ndax amadu dafa daal di rekk fa yéene ñëwaat jël revanche am jàkkaarloo ak gouvernement bu yees bi fi nekk eh, loole rek di kàddu yi nga xamante ni ëttu yéenekaay bi di info quotidien moom moo daal di àddoo lu ni mel fekk leen ma ci semaine beneen naataango eh, di rek Dakar News moom it noonee la daal di xëyee di Amadou rek mu daal di def grand mbubb bu weex tàll te jekk eh, moom ëttu yéenekaay bi ne Amadou daal di si dellusiwaat ci réew mi waaye bi yoon nag dana daal di wute lool eh, ndax dafa fas yéene ñëw ngir jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom moo di rek président ba woon di président Macky Sall mi nga xamante ni moom moo ko daal di tabboon rek ngir mu daal di rek taxawal lii di rek APR ci yile élection waaye rek président Bassirou Diomaye Diomaye Diakhar fay mi nga xamante ne euh, moom moo rek daal di koy yóbbu ardo ci les élections moom ëttu yéenekaay bi di àdduna ginnaaw lu toll ci 35 virgule 79 pour cent yi nga xamante moom muy di Amadou amoon na ko ci yooyu la ba jamono ji sax ñu ne bu ñuy wax chef de l'opposition euh, moom moo daal di taxaw ngir rek gàddu ko moom ëttu yenn ne bu weesoo problème yi nga xamante ni amoon na ko ci biir APR diggante moom ak njiitu parti bi di APR gars yi fa nekkoon moom ëttu yéenekaay bi di àddu ko ne ndax Amadou dafay ñëw wëy di ànd ak ñoom wala rek dafay daal di fël làngu boppam moom ëttu yéenekaay bii di àddu rek ne sénégalais yu bari jamono ji rek ñi ngi daal di xaar ana ban tànk rek la kii di Amadou Ba di feccee jëm ci li nga xamante ni moom moo di rek eh, ci géewu politique bi ba tax na mu jàpp ne rek lu baree bari soo wëttuwul eh, des na rek daal di xajam ci diggante moom ak ki nga xamante ni si rek moom moo di président Macky Sall eh, bu xajamul ba noppi beneen ëttu yéenekaay di l'informateur moom moo daal di rek addoo ni ni mel ni ginnaaw giite ngaas ak jàppal bàyyi yi nga xamante si moom moo daal di doxoon ci seen diggante ci yooyu la élection moom ëttu yéenekaay bii di informateur ah, di addu ko ne soo wëttuwul anakan rek moom moo daal di rek wuutu kii président Macky Sall ah, ci boppub BAPR ba tax na ëttu yéenekaay bii di addu ko ne rek du da di yomb ci seen diggante ndax am mi ñu daal gis ni ki démb ah, soo wëttuwul du may gaay yi dara jëmale rek ci li nga xamante moom moo di rek ci àllug politique bi moom ëttu yéenekaay bi ne euh, teertu bu rëy te tocc rek la ko ay militant ak i sympathisant am def niki démb ngir xamle rek ne Amadou daal dinay joxaat ci li nga xamante ni moom moo di ci réewum Sénégal enquête quotidien euh, xëy rek di def euh, ay contestation jëm ci li nga xamante ni moom moo di libéraux ak démocratique mu mel ni jamono ji gars yi ñoom itamit ñoo ngi rek xool ay ndaje yoo xamante ni dañu koy daal di def jëm ci seen biir di libéraux yi ak démocrates yi ba tax na ëttu yéenekaay bii di addu ko ni ni ki démb rek kii di Moussa Diakité daal dinay addu bokk rek ci li nga xamante ne euh, moom moo di rek bokk gis-gis nee na lu toll ci 49 formation yoo xamante ne euh, des na ko daal di amal ci seen biir ngir ay waxtaan yoo xamante ni ñoom ñii di parti des na ko daal di amal mooy APR ak lii di bokk gis-gis ba ci li nga xamante ni euh, moom moo di LDR yeesal moom ëttu yéenekaay bi ne loolee lépp ëttu yéenekaay bi jàpp ne baadu rek ab taxawaay la boo xamante dañu ko daal di rek fa yéene def euh, ngir dooleel li nga xamante ne si rek moom moo di opposition bi peuple quotidien moom xëy rek euh, di wàññi doole yi ki nga xamante ni moom moo di rek euh, njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolee nag du bile ëttu yéenekaay waa di kii di Moustapha Diakhaté di ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ci bile ëttu yéenekaay moom nag mer bu futt la def di artu ak dànkaafu njiitu réew mi jëmale rek ci suuful coow coowul suuf li nga xamante ni daal dinañu koy nemmeeku ci réew mi moom Moustapha Diakhaté ne kenn ku nekk moo daal di war a wax ci wàllum suuf ba mu des njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay ndax lu toll ci mille 3200 mètres cube yoo xamante ne si euh, suuf la di ay tool yu mu daal di am rek ca njaga ñaaw waaye dikkaat tamit ci 200 mètres carrés yi nga xamante ne si daal dinañu koy jox rek ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi moom mii rek ma ngay daal di àndu ci Sandiara nee na lépp euh, dafay wane ni kenn nit ku mën a am hectare yooyu bu fekkente ni moom mi nga xamante ni ancien impôt et domaine la woon ngàllamaak nga xamante ni ay millionnaire lañ wala ay milliardaires yor seen xaalis te mën a jënd ci réew mi euh, di kàddu yi Moustapha Diakhaté waaye daal dinay dikkaat tamit ci ñi nga xamante ni doon nañ yëngu ci impôt et domaine euh, ban attribué leen ay suuf te jamono ji ñuy jaabaajolle ci rek régime bi fi daal di nekk moom Moustapha Diakhaté ne ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni si rek moom moo di Cheikh Diba Waly Bodian Diouf ak ki nga xamante ni moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar fay këram gi ñu ko daal di jox foofee ca Mermoz uh, ba mu tabax ko loolee lépp rek moom Moustapha Diakhaté nee na buy nangu suuf ak jël lekk uh, suuf yi nga xamante ni dafa jàpp ni jaarul ci yoon baye boo mu boole ca ñi nga xamante ni uh, ñoom ñoo ko daal di wër ndax kenn ku nekk am na ci loo toogaale bi la ëttu yéenekaay yi di peuple quotidien moom moo ko daal di xëy fësal keneen ku xëyaat di ko attaqué tamit di Tunkara moom it tamit ma ngay daal di àddu jëm rek euh, ci visite yi nga xamante moom njiitu réew mi mi ngi koy faral di def rek ci déndub Afrique loolee sax moom Tunkara dafa daal di jàpp ni amul nag si mën na ko daal di li nga xamante moom moo di Sénégal waaye àdduna it euh, jëm ci ilimaani jëwriñ Ousmane Sonko ak tukki bi nga xamante ni nee na fas yéene na ko daal di def rek euh, doore ko ci Guinée Conakry Guinée Bissau Mali Burkina Faso ak Niger loolee na politique boo xamante ni ne ñaar ñi nga xamante ne mooy ñaari doomu pendanaar yi euh, fas yéene nañu ko daal di def rek ci dénd bu Afrique loolee Ousmane Tounkara moom moo daal di rek àddoo nu ñu mel euh, ci bile ëttu yéenekaay yi fekk leen ma ci li quotidien moom nag daal di nay xëy rek euh, niki démb foofee ca port bu Ndakaaru ak passation de service bi nga xamante ne kii di Mountaga Sy doon na ko fa daal di def moom ëttu yéenekaay bi dikkaat na ca rek ak directeur bu yees wala rek ex directeur di Mountaga Sy la nga xamante ni bàyyi na ko foofee rek ca port autonome bu Ndakaaru nee na rek ci atum 2023 euh, ba ci 2024 gi nga xamante ni daal dinañu koy wàcce ca boobule port bàyyi na fa lu toll rek ci 53 milliards euh, yoo xamante ne si rek euh, liggéey la boo xamante ni amal nañ ko foofee ca port bu Ndakaaru waaye dikkaat na tamit ci niveau DC ak emploi yi nga xamante ni lu toll ci 92 pour cent loo xamante ni ay recette douanière yu fa daal di nekk moom ëttu yenekaay bi di àddu ko ne défilé boo xamante ni jàpp na ni bu dëgër la bu ñu daal di foofee ci port autonome bu Ndakaaru l'observateur dikkaat ci giita ngaas gi nga xamante ni ni ki démb nemmeeku nañ ko di ab dàggasante ak defante boo xamante ni euh, moom ëttu yéenekaay bi di l'observateur daal dina koy def ak euh, ki nga xamante ni moom mooy ministre de l'agriculture Mabouba Diagne ginnaaw ay kaddu yoo xamante ni euh, bi la ëttu yéenekaay di l'observateur daf ko daal di yëkkati woon jëm ci dette fiscale yi nga xamante ni état bu Sénégal daf ko ameel opérateur semence yi loolee Mabouba Diagne nee na barki démb rek ci l' observateur addu loolee neexu ko dara moom it l' observateur nee na tontu du forox ba tax na mu yëkkati ay kàddu ni ki tey ci bile ëttu yéenekaay nee na ministre bi moom na bàyyi di wax loo xamante ni si lu dul dëgg la foofee rek la ko daal di dooree du samay kàddu l'observateur moom moo ko daal yëkkati ndax nee lu jëm ci opérateur sommation yi nga xamante ni ministre bi nee na euh, dette yi nga xamante ni war nañ ko daal di fay te nguur gi fi jóge bàyyi ko fi diggante 2021 2022 2023 toll rek ci 40 millions loolee bi la ëttu yéenekaay nee la ministre bi wax du dëgg ndax mbir ma rek ma nga daal di toll euh, ci téeméer rek fanweer ci ay milliards décembre bële ñu génn ñu daal di ciy dugal lu toll rek euh, ci fukki milliards ak ak juróom mars bi ñu euh, moom moo ci daal di mujj lu toll ci ñetti milliards ak genn wàll la ñu ci daal di def te loolee lépp boo ko daal di xayma euh, wàññi ko rek ci 130 milliards yi nga xamante ni euh, opération yi état bu Sénégal daf leen ko daal di ameel dafay des rek lu toll ci 87 milliards maanaam juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari yoo xamante ni état bu Sénégal war na ko daal di fay opérateur semencier yi ba tax na ëpp yéenekaay bi di àddu ko ne li ministre bi wax ni 40 milliards la kon loolee dafay firndeel ko ni li muy wax xamu ci dara du samay kàddu ëttu yéenekaay bii di l'observateur moom moo daal di fësal lu ñu mel ñu daal di koy ndar keppee ak Sud Quotidien eh, li noppi rek ba ñu war ko rek daal di dawal ci Ndakaaru di rek eh, berte bi nga xamante ni daal di nay noppi moom ëttu yéenekaay bi rek ni ki suba ci àllarba ji des na ko daal di daloo eh, mu toll rek fukki fan ak juróom ci weeru mai moom ëttu yéenekaay bi ne loole it ginnaaw njiitu réew mi président Macky Sall ba mu ko fi inauguré rek 14 janvier ba la ñu daal di génn Euh, ci diirub lu mat euh, juróomi weer wala fukki weer ak juróom-ñeent sax yoo xamante ni mbir ma jotul daw euh, moom ëttu yéenekaay bi rek ma ngay daal di àddune mbir ma des na daal di door ni suba rek fi nga xamante ni moom moo di si Ndakaaru boobule ëttu yéenekaay yi moom moo ko daal di fësal dikkaat ca koppar yi ñu ci daal di dugal ak rek ñaata waxtu lay def diggante bus bu nekk waaye lu toll rek ci ñaar fukki ak juróom ñu waroon a tabax te jamono ji fukk ak ñeent rek moom moo ci daal di noppi moom ëttu yéenekaay bi ne donte ni sax lépp yëmbul waaye kilifa yi eh, jël na dogal rek ngir rek boobu liberté daal di tàmbali di daw moom ëttu yéenekaay bi moom moo daal di fësal eh, lu ni mel dafay mel ni loolu moo daal di gën a fës ci li ëttu yéenekaay yi xëyee niki tey ci seen i xët njëkk eh, yemoo ak talaata fukki fan ak juróom wala fukki fan sax ak ñeent ci weeru mai atum 2024 way leen di ànd ak suñu programme ci kanam tuuti di ngeen ànd ak soxna Mati Mbaye Diop ci seen mission actualité en débat ak ngërëm moom da leen di ñeel di leen ñaanal kenn lu jàmm.